salaamaaleykum mbokki téléspectateur u le Rufisquois TV gars yi yéen a ngi ci seen seen première scène du département de Rufisque spéciale édition ñu dalal fii benn kilifa tey ji boo yëngu ci wàllu seet ak yëngu ci wàllu faj aada kilifa gi ñoo ngi lay ziar. ñu ngi lay fay. naka yi tey. sant yàlla alhamdulilah. tur bi. maa ngi tudd Serigne Tamsir Cissé. Serigne Tamsir dalal ak jàmm di la wax yaa ngi si seen seen télévisé le Rufisquois TV ñu jëm ci benn xew-xew ñëpp xam nañ ni ñu ngi ci Coupe d'Afrique des Nations Sénégal dem. demi-finale war a joŋante ak euh, Burkina Faso wax ji bari gisaanekat yi ku nekk yaa ngi toog ci plateau di wax tey nag ñu dalal ci ci nu ci nu benn ndaanaan Serigne Tamsir Sénégal Burkina Faso suba la de. incha allah. ñu bëggoon nga faram-fàcceel ñu ci tuuti ñàkkul ni am na loon gis ci marché bi. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. ci question bi nga xam ne yaa ñu koy laaj ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu di sant suñuy waajur suñuy ñaari waajur ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen yàlla ñu yàgg fi loolu te waaw li nga xam ne rek moom lañ ci wax ci Sénégal Burkina mu doon loo xam ne nii lu ñëpp bokk la muy Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk te kenn ku ci nekk war nga cee indi sa participation ci sa doole wala ci sa xam-xam wala sa xalaat Sénégal Burkina nag doon na loo xam ne nii lu ñu saytu la seet nañ ko seetantal nañ ko ba xam nañ ñi nga xam ne nii suñu borom xamal nañu ni match bi di demee mooy li nga xam ne nii moom leen ciy wax match bi nag bu ibbeekoo incha allahu rabbi Sénégal dina ci am deux bi Sénégal Sénégal dina ci am deux bi première mi bi dina dugal bu soobee yàlla deuxième mi-temps bi dina ibbeeku mu dugal ab biiram mu daal di jeex ci kàttanu suñu borom. waaye nag loolu dafa am sarax buy tax loolu mën a yomb day tax loolu mën a yemb sarax boobu nag lañ bëgg a ak sénégalais yi kenn ku ci nekk mën nañ koo defal suñu bopp waaye bu ko ñëpp defee day daadi am doole te day daal di neex moom lañ leen bëgg a wax. muy li nga xam ne day doon ñetti paquet suukar lay doon ak ñetti pomme verte ak ñetti biridel bu bu ngeen bu ngeen jëlee loolu noonu ñetti paquet de suukar yi ak ñetti biridel yi ak ñetti pomme yi da ngay jël benn paquet suukar. ak benn biri del ak benn pom nga jox ko benn xale bu jigéen nga defaat noonu ba ñett yëpp mat boo ko defee incha allah rabbi match bi Sénégal dina ci am ndam lu yaatu ci kàttanu suñu borom te du am benn jafe-jafe incha allah. kon daal ñu jàpp ni Serigne Tamsir nga ne Sénégal dina dóor ñaari bal ci dara. incha allahu rabbi bu soobee yàlla bu ñu defee sarax bi match bi noonu lay demee ci kàttanu yàlla Sénégal nañ ko séntu final bu soobee yàlla incha allah ndax suñu waxu dem suñu waxu tey te loolu mooy suñu gëm te loolu la ñu wan. te am nañ yaakaar ak yaqin ni Sénégal dina dem final bu soobee yàlla incha allah bu ñu àggee final bi nag ñu xool ban moyen la ñuy defaat pour Sénégal mën a indi coupe bi Séné euh, coupe bi mën a ñëw Sénégal incha allah. sa gis nañ fi ci say yeneen mbokku gisaanekat ñu toogoon ci ay plateau toog ci ay tele ñii ne Sénégal day dóor lii score bi jaar fee la gis jaar fële am na sax ñu ne woon Sénégal day day teel a toog. du yegg fii yëpp yow nga ñëw wax ne Sénégal Burkina Faso Sénégal day dóor 2 bi à 0. incha allah ndax loo xam ne la dañ koo xool saytu ko ci Ramli gis ko te tamit match doon nañ ñoo xam ne tamit nekkuñ kuñ ciy présenté ndax boo équipe bu yu bari fii ñaanal nañ leen. te képp kuy takk daal nekk jour bu ñu génnee wala boo seetaanee vidéo bi di nga xam ne kii wax nii naanaan la di xam ne kii waxuntuwul ci fubal ndax fubal koo xam ne nii tey boo ñëwoon suñu place bi ñu nekk. ay mayo la ñuy njagañaayoo boo ñëwee ay bal nga fay fekk wàllu fubal nga fay fekk ay ñi jëflanteem ci fubal la ñuy jëflante ñoom kon fubal doonu loo xam ne dañ koo dañ dañ dañ ciy fortaatu dañ koo mën xam ko maanaam équipe bu équipe boo xam ne ni biddiwum dafa yéeg xam ne ñi ngay def ba mën koo ñaanal équipe boo xam ne wàcc xam ne ñi ngay def ba mën koo ñaanal bu nekk rek mën nañ laa saraxam lan la te sarax bi ni kenn mënu koo dindi gi nga sarax bi ma leen jox nii Sénégal foo ko mën a turne ci neuf lay ñëwaat sëriñ yi mën nañ ko jël ñu xoolaat ko bu baax ñu saytu ko sarax yi ma leen jox foo ko mën a tourné ci neuf lay ñëwaat te neuf mooy mat si kenn mënu koo dindi waaw ñun du leen jox sarax boo xam ne dañ koy tante sarax leen jox day doon sarax boo xam ne nii kenn mënu koo dindi sëriñ ci mathématique ci calcul mënoo calcul ba dindi sarax bi ñu lay wax sarax boo xam ne la bu ñu ko defee incha allah rabbi Sénégal day am ndam te kenn du ko mën a dindi incha allah sarax bi suba gi lañ koy génne wala ngoon gi waaw sarax bi ci suba gi koo mën a génne ci suba gi moo gën ndax euh, booy génne sarax nga génne ko suba teel da cey gën waaw ku ko mën a génne na ko génne ku ko mënul génne tamit am keneen ku ko mën a génne na ko na ko ko génne ndax tamit sarax bi ñun mën nañ koo génne te dañ koy génne waaye dañoo bëgg ñëpp defandoo ko mu gën a neex ndax ñun ñoo ko bokk mbokki téléspectateurs yi ah ñoo ko gisandoo mu ngi noonu ñu mu seet si woon ñu dalal ñu di yëngu ci wàllu ñaan di kilifa gu ñëpp xàmmee ci réew mi mu ngi noonu gars yi kon nag yéen a ko gisandoo euh, xamal ne nañu kat sarax yooyu bu ñu ko génnee Sénégal mën naa dóor ñaari bal si dara mm, di ñaan yàlla suñu borom dolli ñu jàppale suturaal ñu aar ñu ba nuñ ko yaakaaree noonu mu mën a mu mën a sottee noonu kilifa gi beneen bi ci topp dafa mel ni dangay yëngu ci ay ñaan ak fajum aada ak cosaan. waaw loolu moom dinañ ci sawar trop ndax wàllu asraar dañ ci yëngatu bu baax a baax a baax. ci wàllu faj ñu ngi ci wàllu kurus ak ci wàllu mbind ndax loolu dañ ciy yëngatu ndax jàng nañ ko suñu waajuru góor moo ñu ko jàngal doon koo xam ne ni moo bokk ak suñu baay ñu ñoom ñaar ñu nekk ay maarak ba ma nekkee lu ndaw sama baay jël ko jël ma yóbbu ma ca moom mu jàngal ma alxuraan yar ma def ci man li war moom moo ñu jàngal li nga xam ne moom mooy alxuraanul karim bi ñu ñëwee tamit ñu commencé di def ci liggéey bi waaw ndax dañuy yëngatu ci di faj ci wàllu lu mel ni rab dañuy ñaanal koo xam ni dafa bëgg a tukki dañuy ñaanal koo xam ni ay buntam dafa tëju dañuy ñaanal koo xam dafa bëgg a jëkkër dañuy ñaanal koo xam tamit day commerce bëgg commerce am jëm kaw ak samp kër koo xam ni dafa am terrain nul wala mu am kër bëgg dëkkuwaay lépp dañ la ciy ñaanal wala ñaan ci lu jëm ci wàllu ay waruwaay otoog moom daal lépp lu nit di xeetu woo rek da nga xam ne boo ko amee sa àdduna day gën a ñoŋ sa dund day gën a ñoŋ loolu am nañ ci yoon boo xam la koy ñaanal ci yoonu alxuraan bu dee nag ci wàllu seet bi dañuy listixaar maanaam seetewuñ leneen lu dul listixaar istixaar la ñuy def di ci saytu ba mu leer ñu ne la génnal sarax nangam génnal sarax nangam defal sarax bi boo ko defee mu baax ci yow te mën laa jëriñ jëriñ sa njaboot incha allah. Serigne Tamsir fan nga situé wu fan nga basé wu fii ci Tëngéej. waaw sama base nag fu mu ne instant bi nii maa ngi basé wu Thiès laa nekk waaw Thiès laa nekk waaye fii la sama kër nekk mu nekk Sande Course waaye bu dee nag ci li nga xam ne fi ñu ñi nga xam ne dañoo bëgg euh, di jël rendez-vous di ñëw foofu ñoom foofu cees la bu ñu ooyee Thiès lañ leen indi incha allahu rabbi est-ce que tey jii mën nañoo am loo xamante ne buñ la soxlaakat buñ na ci woowee dina leen ci jot lu ma ni say numéro. waaw am naa numéro téléphone boo xam ne ni ku ma ci woo di ma jot mooy mooy Tigo bi 834 59 51 boobu mooy 76 bi boobu numéro Tigo boobu ku ma oo incha allah di ma ci jot. waaw 834 59 51 incha allah ku ci woote rek di nga ma jot direct amul keneen koy jot mën ngay jot direct lépp loo bëgg ñu taxaw ci incha allah. nga bantuwaatal ñu numéro bi. waaw mooy 76 834 59 51 waaw boobu mooy numéro bi nga xam ne ku ci woote rek di jot incha allah. ayca mbokki téléspectateur Le Rufisquois TV ah yéen a ko gisandoo mu ngi noonu ah di di di ndaanaan di kilifa ñëw seet si woon ñu analyser ñun ci match match Sénégal bi. mu ngi noonu sarax yaa ngi noonu ñetti paquetu suukar la ñetti meew biridel ak ñetti pom nga sarax ko jigéen nee na daal incha allah bu ñu ko defee noonu incha allah gis nañ ni yàlla suñu borom dinañu may ndam Sénégal dina dóor 2 bi à di jaajëfal gars yi.